étranger boo amul woon mayga du am ay mayga mayga ngi nii bu leen génnee réew mi nañu wedde ala <laughs> lopi lopi <laughs> mayga ngi nii de tey mayga ana dose dose café dose ah ak lan sax fàtte naa oh. am solo étranger ba am solo ci réew étranger boo amul woon mayga du am ay mayga mayga ngi nii leen génne réew mi nañu wedde ala lopi lopi mayga ngi nii de tey mayga ana dose dose café dose ah waaw ak lan sax fàtte naa oh am solo étranger ba am solo ci réew